ngeen euh, wala gis nga yenn weccoo kàddu yi nga xamante ne doxoon na foofee ci diggante ñenn ñi maanaam yenn askan wi nga xamante ne moom fa nekkoon ak euh, leader wuyu euh, coalition sàmm sa kàddu googee ku si mel ne kii di Barthélemy Diaz ba nga dégg la nga xamante ne moom fa jib mu jib fa maanaam ay kàddu yoo xamante ne mën nañ ko jàppee ay saaga ndax sonkorisé gi nga xamante ne sonkorisé nañ ko foofee moom Barthélemy Diaz ndax un leader Euh, koo xamante ne il aspire diriger un jour un pays ou bien dafa aspirer dem représenter li nga xam te moo di askan wi ca pencum ndawi réew ma war na mën a am réaction yii ci kanamu askan wi nga xam te ne moom lay taataan ay ay kàddoom maanaam ay votam nee na euh, démb li ma neex ci journée démb mhm. politicien bu nekk dañoo xam jikkoom vingt quatre heures chrono yi démb mhm. vingt quatre heures chrono démb la woon ñaata démb la woon 21. le 21. 21 uh-huh. lan. octobre 21 octobre 2024. 24 uh-huh. heures chrono wu démb yi daa tax ñu xam kan mooy kan ci bépp politicien. Mm. en commençant par Barthélémy Diaz pourquoi askan wi xam Barthélémy soow xataraayu. Mm-hmm. ngand ngandalu génne fetal tiire ku fi ñëw dama lay rey lan nga xamaatee Barthélémy Diaz ndaanaan laa. booy taawun la awma mm. lu may ragal États-Unis laa yaroo wala laa màggee lii moo duggal ci làngum politique mu Sénégal mais débat politique bu ñu ci doon wax dëgg-dëgg xam-xam mm. Barth out lañ koy wax bu yàgg mosoo leen dégg ci benn plateau Barth tenir débat boo xam ne ni da ngay xam ne kii li muy wax vision la wala projet la mosul am wala ku ko am na ma ko wax ma dégg mm. lenn rek ngay dégg man maay boroom Ndakaaru man bandi man kenn du ma yàpp man sama goon laa yor boo ma ko defee dootoo ma ko defaat dama lay rendi léegi nag ça fait l'occasion euh, Batt moo te ay kàddu ginnaaw gi mu wootee doomu ndey xale yu bari ne ko yow dag ñoo war baaxoo comme xale yi passé fi anticorps yi moom boo amee audience wala visibilité ñoo la ko may sa page Facebook niñ la koy joxee noonu lañ koy jëlaatee kenn moomu leen xale yi abonné woon ñëpp désabonné hmm. mu dem sponsorisé page ba mu génn ne ça fait l'occasion euh, moom nit ku yaru la tey ñi nga gis ñëpp ñu désabonné page page am mooy xale réew yi mooy ñii di saaga ndey moom du saaga ndey ne waa Pastef ñooy saaga ndey xale yi Ousmane Sonko yi ñooy saaga ndey moom du saaga ndey léem mm. dem nag yàlla da koo weer mm. yàlla xam na mu ko weeree moom moo saaga léegi ñan ñoo réew léegi xale yi Pastef yi wala moom mi doon wax moom moom du saaga. a ah, en tout cas saaga na la ba tudd yaay. Barthélemy Dias moom moo saaga ndey. Mm-hmm. léegi nag li muy wane mooy est-ce que mës nga dégg Ousmane malgré yi moment yi gën a difficile ci moom nga dégg Ousmane Sonko saaga ndey. Mm-hmm. Amadou Mame Diop sax dégg nga ne buleen ma fontoo benn yoon si Ousmane bi muy am ay jafe-jafe laa ko mës a gis mu réagir noo xam ne waru koo réagir hmm. xam nga kañ la bi muy dem Ndar di fa def benn tournée bi muy jël loxoom ba di ko duur si oto police bi hmm. ndax boobu dañoo dem ba di ko sonal di ko bundu xatal hmm. mais lenn nga mës a seetlu malgré injustice biñ koy def mësoo ko dégg. muy la Barthélémy Dias def li Bougane def mooy mu jàkkaarloog takk der yi di di leen défier au contraire li mu leen wax ne bés dina ñëw ñu tase mm-hmm. mais calme lay wax ak ñoom day wax ñoom en l'aise day wax ñoom day posé wu mm-hmm. mais li lan moo tax Barthélémy Dias saaga loolu lay wax ji. parce que xale yi dañ ko sonkorisé. léegi nag bu ñu demee ba ci analum politique ñu jël moo sonkorisé dugal ko ci rek. mosoo dégg bartalisé mosoo dégg buganisé looy dégg mooy sonkorisé moo boobu boo demee bu ñu dugal ko ci langum politikum Sénégal mooy am na ku ko moom sonkorisé moom moom sax ci loolu avant muy muy dem foofu ci mbedd bi bi ñu nekkee ci biir tribunal yi euh, bi ko euh, policiers yi di génnee mu ngi naa leen maa ngi génn mais maanaam bu ñu ma waxee nàngam di ngeen am euh, lenn la wax mu ngi ci biir tribunal bi. Mhm. waaye da ne takk der yi mhm. maa ngi génn. Mhm. waaye bu ma génnee. ku ne ma sonko sonko yéen takk der yi yéen ñi ko am jafe-jafe. rupture am na. Barthélemy Dias moom ak ay garde corps am yi nga gis ñu jéem a attaqué waa Tamba di leen dàq di leen dóor bu fi nekkoon ci nguuru Macky Sall ñoom kenn du ñëwee ci Tamba. ñoom yi nga gis ñu jàkkaarloo walla dugg foofee. Mm. lees bi ñu ci nekk. bu fi Macky Sall nekkoon ak général Moussa Fall ñoom leneen la ñuy dund mm-hmm. encore une fois rupture am na léegi nag lu xew mooy wax ja mm-hmm. mooy ki ngeen doon wax ne sàmmul kàddoom mm-hmm. ki ngeen doon wax ne askan wi bàyyi nañ ko ba xale yi di dem dugg ji géej ki ngeen doon wax ne la mu leen doon wax nekkul ay kàddu yu dëgg Ousmane la muy wax amul Ousmane mi nga xam ne moom nga tuddee mii mi Mm-hmm. Ousmane bi nga xam ne tey tey da ne xale yëpp bàyyi nañ ko xale yi nga xam ne da leen wax ñu jug ñu jël seeni réalité ñu ñu faire face ak réalité ngir ànd ak yéen ndax Ousmane sàmmul kàddoom te dañ ko war a baar démb bi nga demee ca Tamba xale yi dañ ne la yow yaa sàmmul sa kàddu ndaxte yaa doon woote doomu ndey waaye doomu ndey boobee gëmoo ko Amet man Bart laay waxal na ko xam dama koy dee. na xam ne xale yi dafa am lu bëri luñ ko dencal hmm. ndax politikum Sénégal xale yi mën nañu gëm lépp ba mu des trahison hmm. xale yi mënuñoo comprendre nga war sa moroomu nit lu xew lu Bart wax dafa saaga ndey lu tax mu saaga ndax dañ koo sànni xeer déedéet ndax dañ koo sotti ndox déedéet lan moo xew Barth di romb ñu ne ko Ousmane Sonko Sonko Sonko mu saaga ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne yow booy romb ñu ne la Sonko Sonko da war a saaga nit yi ndey loolu xam lu muy wane saaga ndeyu Barth bi hmm. vrai visage bu Barth xam ngeen ko. ña mu doon wax ñoo réew ña mu doon wax ñooy saaga kat ndey ñoo ñooy ñooy saaga ndey tey moom moo saaga ñëpp xam nañ ne tey bu nekkee ne xale Pastef fi dañuy saaga moom mooy seen leader kon ndax il est le maire et ce qui est mooy le maire de Dakar ki nga xam ne moo bëgg a nekk député ca assemblée nationale moo jàkkaarlook askan wi di yëkkati ay saaga di ko jëmale si ñoom mm-hmm. léegi nag bu ñu demee ba Barth nangootul dégg li nga xam ne moo di turu Ousmane Sonko loolu lu muy wane mooy kon mësu koo bëgg mbir bi mësul sincère àndandoo bi àndandoo intérêt la te balaa ngay xam ne nit ki mooy sa waay wala sa dëgg mooy sa gaañ dëgg-dëgg. Mm-hmm. nga nekk ci ay jafe-jafe. Mm-hmm. kon day firndeel ne. li askan wi doon wax ne li muy dafa trahir maanaam ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moment bi Ousmane nekkee ci ay jafe-jafe ñu naan dañ koy tëj dina doon candidat wala doonu candidat ci hmm. moment boobee nga ko war tey bu ñu demee ba askan wi daan Sonko Sonko déggoo ko jàppal ne euh, bëggoo dégg Ousmane Sonko ba muy dem ba nga ci saaga loolu ça pose problème. Hmm. leneen na xam lu muy wane dama yërëm nee naa la ne woon naa leen fu Macky na a campagne waaye du Macky rek. loolu du neex de. Euh, cortège mhm. bu nekkee ne Sonko yee bi lay bañ a dégg te askan wi nee na ko par la force di ko di ko dégg léegi fan la dul déggee Ousmane Sonko Tamba moo gën a néew si ay lu patriote nekk te Tamba nga déggee Ousmane Sonko par la force di ko dégg mais sàlla bu naan mooy borom Dakar bu duggee Dakar lan la nar a dégg kon. bu duggee Ziguinchor. non Ziguinchor Barth dafa battre ji campagne. Hmm. cortège bu dugg Ziguinchor rek. di léegi xam lu nar a xew. mooy ñii fan la ñu fas yéene battre campagne ndax ndax ndax ndax bu yàggee Barthélemy Dias du def la di doon def. porte à porte. bu nekkee Ousmane ngay bañ a dégg da nga fas dem dem buñ ko bëggee buñ ko bañee muy Macky Sall di Amadou Ba. Mhm. di Barthélemy Dias fu ñu jaar di nga dégg Ousmane Sonko bi. Mhm. mooy si ñoom amul kenn koo dégg ñu jël Barthélisé. Dias mhm. lisé Macky lisé Amadou lisé amul Sonko lisé rek ngay dégg mooy Ousmane moom ak ñi mu àndal dañoo xam nan la ñuy jëflanteeg yow. Mhm. ki ngeen di bañ a dégg ki ngeen xam ne bëggoo leen ko te askan wi ànd ak moom xale yi nee na leen par force di ngeen di dégg kooku léegi boo xefulee nag Bart moom bu bu nekkee ne bëggul dégg Sonko lisé bi lii laa koy conseillé na dem si meeru avec yi fi ñuy nattee di dajaloo di tege si leket bi. na dem tëjoog ñoom waxtaan ak ñoom beneen bi baat bu bañ dégg Sonko bi. Hmm. ci élection yi ñu jëm conseil laa koy jox. ne def de telle sorte que dem ci kër sëriñ yi tëju baatare ji foofu campagne boo boo xefulee bu demee ci jumaa ja dina fa dégg Sonko boo def xefulee bu demee ci église bi dina fa dégg Sonko rawatina réew mi xam loolu lu muy wane mooy tey askan wi ànduñu ak ñoom. naam dañoo bëggoon manipuler askan wi naam dañoo bëggoon wax ne askan wi bàyyi nañu Ousmane Sonko askan googee ñoo leen ni fas yéene di leen wax ne fi ñu toll yéen a nekkul ci dëgg léegi nag xam nga lu baax war a wax. Mm. mooy pour pourquoi fu ma jaaroon ñu jaajëfal ma. Mm. pourquoi fu ma jaaroon ñu yëkkati sama loxo mooy ki tax nga doon dara te nangu ko. Mm. askan wi nee nañ la dinañ la wax ne kookee moo tax nga doon dara te kookee tey. nga hmm. bañ wala tey koo tey nga bëgg a faire askan wi dinañ la wan ne tey loo mënti doon c'est grâce ak Ousmane Sonko. Hmm. nga dégg mooy Sonko risé bi yëpp lenn la xam lu ñu koy wax mooy borom Dakar bi nga woote nekkoo ko le vrai borom Dakar s'appelle Ousmane tey boo demee tey ba nekk meeru ndakaar c'est grâce ak Ousmane Sonko Ousmane moomee tey nga bëgg a faire ak moom askan wi ñoo nekk di la wan ne tey. ñun kooku la ñu àndal ay c'est la réalité léegi nag li may jaaxal nan la ñu fas yéene battre campagne beneen bi mooy et aussi le ministre de l'intérieur foofu laay waxee moom ak ñi nga xam ne ñoo di tàkk der mm. dañoo nar a dem ci élection yoo xam ne violence dina bëri mm. ndax élection c'est le moment ou yenn parti c'est lu ñu jël ñoo xam ne garde corps ñoo xam ne jànguñu defuñu métier bi mm. ci la ñu jël seen i nervi ak li nga xam ne mooy seeni i milice noonu laa ko mën a tuddee. seeni i gros bras mhm. euh, bu nekkee nag ñenn si nit ñi bëgguñoo dégg Ousmane Sonko jàppal ne leen yokk seen sécurité lan moo nar a xew mooy ba Macky di dem Saint-Louis wala ba muy dem sa zone nord ba. Mhm. Euh, fu mu romb ñu naan Sonko Sonko ñu mujjee di dugg kër nit yi di dagg seen i drapeau di dóor nit yi looloo nar a xew. maanaam boo xefulee est-ce que Barth narul yokk sécurité de tele sot ko fu mu romb ñu ne sonk Sonko xale bu ko wax ñu jàpp dóor léegi nag la ministre de l'intérieur na jël matukaayam bu mat sëkk ngir nan lañuy ñuy askan wi askan wi ilee est libre kenn moomu leen. Mhm. kenn du leen xool ñoom ku ñu bëgg sonk Sonko ndax kërim la yow bëggoo dégg Sonko sonk kay da doo romb dem. mais bu nekkee ne sonk sonk nga nara bañ boo boo xefulee fu nga dëkk ca mer mu sax nar nga am problème <laughs> léegi nag li muy wane mooy seen popularité nañu foogoon lañu toll tollootuñu ko beneen bi mooy la ñu foogoon ne ay leader nekkatuñu ko ka nga xam ne tey moo leen teg loolu hmm. ngir ñoom tey askan wi bàyyoo leen xel ba ñu yaakaar ne màgg nañ màgguñu kookee ginnaaw gi nga xam ne dem nag boppam tey askan wi war nañ leen ne ànduñu woon ak yéen c'est hmm. grâce ak Ousmane a tax ñu ànd ak yéen comme war ngeen Ousmane nag léegi askan googee foo leen toog dina leen wax ne loolu mënti doon Ousmane la mm. lii mooy li xew. tey réaction bi mu def démb ci kanamu ñi nga xam te ne askan wi ak kàddu yooyu mu yëkkati ndax mënu ko yàqal itam lu bari surtout ternir image am rawatina ci joute électorale yi ñu jëm. Eh, bon Barth wane na boppam bu yàgg saaga garaaw. Mm. saaga garaaw naam garaaw mais dañu nekk ci société ci askan boo xamante ne duñu toléré yenn kàddu yi. mag du saaga. Mhm. naam ku ne nag di nga nekk sa kër yow ak say moroom nga def lu la neex mais tu es un leader mu yu difficile nga war a calme serein. Mhm. yow nga ne da ngaa bëgg a nekk exemple un président assemblée national ak assemblée ni muy rëbbee. assemblée ni muy rëbbee ndax tey Barth bu ñu ko defee président assemblée nationale bu waa passé wax eh, est-ce du jàkkaarloo wala ku fi wax Sonko ma bon des question léegi sénégalais yi ndax di dinañ fal président assemblée nationale boo xam ne bu ñëwee ñeneen ñi faree si beneen wet bu ku wax Sonko mu saaga la ndax bu nekkee ni si biti la ñuy waxee Sonko nga nga saaga askan wi est-ce que bu ñu la defee président assemblée nationale naroo saaga député beneen bi nag mooy ak lu mat taxew maanaam dafa confirmer rek ba hmm. askan mën na baale saaga. mais askan xamul lu mu xam nga sénégalais lu ñu mënul baale. Hmm. muy trahison wor. bi mu waree bi mu waree ba wane ne boppam war na waa ji ci moment yu jafe yi. Hmm. nga warul neutre sax nga noppi naam loo àndoonoom bi nga wonee foofu la baatata yàq lépp lépp lépp la la la la la kii waxoon nag laay wax la Abdou Karim Gueye xurum xaax waxoon ne Barth nga ñaaw ci xew mi waxoon na ko ko te Barth daf gën naa ñaaw si xew mi nag. fi ñu toll nag Barth yàqu na. mënatoo mënatu bi mu Barth nekkuloon dara et c'est la réalité li mu amoon yëpp wala majeure partie lañ ko doon toppee passif la bi mu trahiré Ousmane la xale yi pare si moom. Hmm. tey nag boo ñëwee gën a saaga bu mu la bett te nag coalition boobee bu yàggee boo xefulee ñëppay saaga. Hmm. déggoon nga ne eh, Bougane ne eh, eh, xale yi passif la waaye commencé jàpp ku ne naa. nga dégg Barthélemy Dias saaga te Barth seen avocat ba moom <laughs> Eh, boo xefulee coalition bi sàmm yaa ngi commencé boo xefulee coalition bi sàmm sàmm samay saaga lay mujjee tudd au lieu sàmm sa kàddu sàmm sàmm samay saaga de lay mujjee li yàlla xam doy na ah loolu de warul leader moom euh, espérons que euh, duñ fa yegg espérons que ci euh, loolee nga xamante ne moom nga wax duñ fa yegg waaye dinañu yem ci seen tur boobu nga xam te mu di sàmm sa kàddu jërëjëf Daouda Digal loolee di ponk bu njëkk bi nga xamante ne moom lañ indi woon ci lii di actu commenté